Euh, Assalamu asalaamualeykum alaikum. ngi tudd Elage Hadj Malick Gueye nekk laborantin contrôleur qualité nekk également prestataire de service fii centre national de transfusion sanguine tey jii nag ñun sakouon sàkk woon daje bi mu di ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw nii ñun ñëpp dañoo am tey lu ñu naxari mu di constaté en étant des sauveurs de vie parce que kenn réerewul mbir ne deret nekk na liquide boo xam ne kenn mënu ko créer ci laboratoire doomu aadama kese moo ko mën a may moroomam pour que doomu aadama bi may ko moroomam il faut am ay nit yoo xam ne dinañ dem ba ci population yooyu noonu ñu mën a prélever li nga xam ne moom mooy seen deret ñii fi nekk sama ginnaaw nekk ay biologiste nekk ay infirmier nekk ay médecin lu ci ëpp ci li nga xam ne mooy collecte mobile bi mooy maanaam collecte bi nga xam ne dañuy génn feneen dem defi ko ñoom ñoo koy def est-ce que tey yoon la ñuy avons lu ëpp peu weer yo xamné ne nous jot suñu ma wax leen payor bi ñaata la francs dañuy ñëw ñuy chaque jour de 8h à 14h pour la somme de 5000 francs mu nekk 5000 francs yo xam ne naam am nañu ko mais ñun xébuñu ko pour le moment avons 5000 francs yoy nonu pour que ñu jot ko mu nekk problème dañuy dem ñu liggéey ñu indi ay poche de sang yu bari ba nopi di de seen di leen wax ñu fay ñu li nga xam ne moom mooy sunu état est que loolu jaadu na ba noppi nag ñun ñu nekk ay ay jeunes yoo xam ne ay risques yu énorme nañuy jànkonteel il nous arrive des fois ñu quitter fii nii Dakar dem ba Saint-Louis dem ba Malicounda dem ba Fatick pour dem uti ji li nga xam ne moom mooy sang waaye bu ñu leen expliquer yenn conditions yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel di ngeen ne est-ce que ñun ñii tey ji liggéey moom moo ñu fi bàyyi wala est-ce que ñun jaamu yàlla nañ nekk rek di def tellement conditions yi dafa pénible. d'accord conditions yi dañu pénible certes est ce que les gens dem ngeen waxtaan ci directeur bi ak la tutelle d'ailleurs. wa xam nga tay bu fekké ne dañu nek ci structure euh, établissement public bu melni CNTS dafa am ño xamné ñom ñoy suñu sunuy njiit ci citer ki nga xamné mom moy major Arona sec ak ki nga xamné mom moy le chef de service muy docteur Gay chaque jour ñun groupe bi nga xamné mom moom nek bu fekké dañuy def programmation de collecte ñom ñoy xol équipe bi ñan ñoy dem léegi ñom buñu waxé né ah tay équipe bi ni le na personnes dem gérer gérer chaque jour francs imaginez bu vous né da nga du lundi au vendredi wala euh, du mardi au samedi bu que six jours ya ngi a am trente francs bu que six jours vous ñun ñi ñëpp aussi du six jours chaque jour chaque jour leen même même kii bi la ñuy informer ñu ne ñu ah ñun kat ñu gis parce que ñun xam nañ ne ñoom dépendrul si ñoom parce que li nga xam ne ñoom moom lañ war a def mooy ñu saytu xale yi collecte am ñu teg ñu si yoon ñu ñu dem collecte ji mais nag mënatuñu accepter tey jii ñuy dem collecte di ñëw ñu war ñu fay sunu xaalis di ñu dawloo loolu moom nañ mënul accepter. waaw d'accord xam na fii est-ce waa kay moo tax ma ne la xam nga kilifa gis nga tey booy dugg si nekk. doo jaar si parentère dangay jaar si bunt bi ñun foog nañ ne ñi nga xam ne tey mën nañ àggale sunu sunu doléance si professeur muy directeur bi ñun waxtaan nañ ak ñoom léegi nag dina am yenn situation yoo xam ne si ngay toll yow li nga mën a def mooy da ngay avertir dangay wax imagine leen depuis ñaata at ba léegi nii même condition yi ni ñuy ni ñuy dund fii nii ñu nekk sunu ginnaaw ba léegi nii ce sont des de service am na fii ñoo xam ne def nañ fi plus de sept si ñoo xam ne tey jii waroon nañ tey jii sax ñu mën leen recruter fii nii si centre bi waaye duñ ko def. waaw d' accord yéen léegi boo leen jugee ci ngeen fas yéene def que da ngeen di dem gis ko parce que ñi ngeen xam ne moom ngeen di jox seen ci terrain bi ñooñu ba léegi a antu léegi jot na est ngeen dem bon déjà comme niñ ko defee nii dañuy paralyser li nga xam ne moom mooy collecte mobile yi parce que ñun ñii tey jii wax nañ ne kenn si ñun dootul dem collecte mobile. bi tant que fayu ñu ñu suñu xaalis après régler itam cahier de doléance bi nga xam ne am nañ ko ñun dootuñu négocier si yenn point yi li nga xam ne moom mooy koor gi gis nga ñun ñëpp xam nañ ne nit tey bu fekkee ne da nga woor mënoo maye deret te ren ren yi ma yeggali ren aussi ñu gis ne li nga xam ne mooy carême bi dafa jege ramadan bi ñoom ñaar sax ñoo coïncider mu nekk période boo xam ne banque de sang yi dañ siy souffrir parce que maladie ñu ngi toog fi mu toll nii si hôpitaux yi di nit dem uti ji sang pour ñëw jox leen

wala tey fiche bi nga xam ne moom nga émagé woon gisuñu ko wala ñu am ay ay ñu jël benn mois boo xam ne deux semaines la ba pare nag après ñoom ils vont se dire que ñoom fay nañ suñu xaalis mais ñun ñun ñu ne ñun ñu nekk fii nii ñun kitéewuñu si li nga xam ne mooy mbedd bi pour ñëw dugg fi synthèse xam nga yow li ngeen wax dëgg la mais xam ne nag ma tontuwul ba léegi xam nga jafe-jafe bi yàgg na mais ki nga xamante ne mooy ndeyu mbil gi ngeen war a waxtaan am ndax toog ngeen ak moom loolu waaw kay la répété laa lay répété waat parce que fii nii tey ah. kilifa yëg bu baakha a baax li nga xamne mom mo xew parce que li nga xamne amna ñaari responsable dina si rappeler wat muy monsieur Arona Sek mom moy major banque de sang ak ki nga xamne mom moy docteur Gueye mu nekk chef de service bi ñom ñaar ñep ils sont au courant te ñooñu bët nañ làmmañ nañ si li nga xamne mom moy mom moy centre bi donc li nga xamne mom moom ñu metti tey ñun mënu ñu jéggi ñooñu nonu pour dem casque fenen dedet dañuy dem ñu wax leen ko ñom ñu dem si ñi nga xamne mom moy les services compétents pour jàllale li nga xamne moom moo ñu naqari moo tax ñun ñi ñun ñu fi toog ñu yëpp ñu mànkoo ñu ne dematuñu benn collecte fi mu toll nii daan nañ faral si weeru koor bi bu ñu ndogoo ba pare nit ñi ñuy xalaat dalu ñun ñuy wër mosquée yi di dem di uti uti ji sang parce que xam nañ ne am na ay malade yoo xam ne ñu ngi toog di ko soxla loolu nag effort yooyu noonu yëpp ñun bu fekkee ne ñu ngi koy def ay la yëwén nit ki cinq mille francs boo xam ne yaa ngi ko war a jox nga topp ko ay semaine ay mois ba ay ba ñuy euh, di di comptabiliser plus de quatre mois loolu du yoon Il amna si kenn ko xamne mu ngi nek sama semaine passée dafa jënd ay verre ay té pourtant si service bi la bok, mu ngi ko francs et moo ne moom na xaliss bo xamne mu ngi doon nelaw ont ni parents ñu ngi dañoo am ay problème ñoom di seen problème personnel fi ay de famille arrêt collecte ngeen hôpitaux yi manque ah, euh, responsabilité dinañ xam

association yooyu non bu organiser ay journée de collecte ñun buñu démé ci si journée bi rek mën nañ indi ay 100 200 poches ba même sax des fois 300 poches li nga xamné moy cabine fixe bi ni lolu nonu mënul mënul indi poche yoy noonu sauf si bu féké dafa am yenn collecte de grande envergure donc ñun liggéey bi ñuy def ni matul xép parce que ñun suñu liggéey dañ ko mën. légui mën nañ dem ci français bi. voilà. parce que liggéeyu collecte don de sang liggéeyu équipe la. donc ñoom difficulté yi ñuy dund ñun moom dañ koy dundandoo ak ñoom donc ni ko ni mu ko waxee som sommes euh, cent pour cent d' accord ci voilà difficulté yi mu énuméré yëpp ci wàllu paiement bi ci wàllu condition de travail yi nga xam ne ni ñoom ci la ñu nekk euh, voilà ak euh, aussi même matériel bi nga xam ne ni moom la ñuy liggéeyee donc à chaque fois dañuy dem def ay réclamations par rapport ak loolu mais bon toujours dañuy am jafé jafé pour lolu lolu faju donc euh, ñun ñi nga xamné ni médecin de collecte yi la daf ci am ñoo xamné ni dañoo dañoo am contrat ak ñoo xamné ni donc comme ñom lañuy def euh, comme biologiste lañuy def dañuy ñëw def prestation ñu fay leen journal journalièrement donc même montant bi lañ leen di fay euh, ñoom it ci même état yi lañuy dugg donc même même même durée bi ñuy tok bi ñu leen fay loolu loolu am donc ñun ñi nga xamné ne ñun ñoo bénéficier contrat prestataire euh, donc bi année bi commencé ba légui donc fayaguñu suñu salaire euh, également même contrat bi ñu waron signé sax dem nañ fa à plusieurs reprises mais à chaque fois nous euh, buñu proposé contrat bi day dañuy dem ba ci biir ñu en fait dañ ko rejeter voilà donc mais pendant ce temps ñun mënuñu won arrêté liguey bi parce que dans le sang dafa doon lu lu xawa délicat parce que maladie comme ñu ngi hôpital di di toog di xaar yow munoo xol sa bop rek ak say jafé jafé rek donc dal di jékki-jékki rek dal di dem en mouvement voilà donc euh, alerté nañ à plusieurs reprises comme ñu mu doon wax noonu chef de service docteur Moutala dem nañ ci mom à plusieurs reprises mom def na lu mën dem na ci DRH bi dem def na lu mën voilà dem nañ ba egg ci directeur waxtan nañ ak mom aussi bon waxon nañu né en fait euh, dafa am ay ay difficultés ay blocages mais euh, dina jéem trouver des solutions bon loolu biñu ko waxee ak legui man man na deux semaines donc depuis lors ñu continuer di dem voilà mais dem nañ ba xam aussi biñu continuer ni voilà du du bax ci ñun du bax ci euh centre bi parce que ñu ko waxee ñëpp dañuy am ay difficulté des fois sax pour euh, euh am luñu passer pour ñëw ba fi voilà donc amna na ñoo xam ñu ngi dëkk côté bi mais amna na ñoo ñi ci ëpp banlieue bi lañ dëkk voilà donc euh, même problème yi lañu jankontel jànkoonteel ah, te ñi nek fi yëpp Euh, ku xam centre bi xam ne maanaam ay nit yoo xam ne nii euh, ñu dévoué wu lañ ñu bëgg li ñuy def la donc looloo tax sax ñu mën a euh, muñ difficulté yi ñuy dund yëpp ak malgré jafe-jafe yi nekk ci ci ci dëkk bi waaw ñu ci bëri doon ay am na ay pères de famille donc am ñoo xam ne même bu ñu ay pères de famille aussi donc nañ seeni parent ñu ngi leen di xaar am nañ responsabilité yu leen war voilà donc. Euh, waaw bon am nañ ci am nañ ci yaakaar parce que en fait lii lii ñuy kaas ni euh, njariñ li euh, mun naa ne ñun ñoo ci gën a néewle parce que service bi bu doxee ñoom ñi diriger service bi ñoom ñoo ci dañ ci gën a gis seen bopp également maladies yi nga xam ne surtout ñoom ñoo tax ñun ñuy def ñoom dinañ dinañ mën a am poche yi nga xam ne nii moom lañu soxla voilà donc ñun gisuñu jafe-jafe pour que Euh, lii ñuy revendiquer nii donc ñu régler ko parce que doonul lu lu compliqué et que loo xam ne nii donc lu ñu war loola ak ñun donc yaakaar ñu mu am jafe-jafe